ànd nawle au niveau départemental yàlla dimbali ko mu jàll mook président Adama Diallo te conseil départemental boobu nag lu ci bëri dugg na tey Colobane loolu moom dina si ñëwaat ci conseil départemental lu ko jëlee kon loolu lu am solo kon bu ñëwaatee tey mu présenté waat nag wi dañ naan nag wi njiglaayam la kon loolu njiglaayam la alors ci biir parcours boobu Amath Diop responsable APR la dañ koy préciser nag responsable APR la kooku na leer dañ ko préciser mu am reconnaissance su parti bi dañuy joxe preuve rek mu am reconnaissance su parti bi ndax élection présidentielle yi weesu Amath Diop moo téye woon carte mandataire bi. carte boobu nag xoolañ ko rek ne neex na ñu ne dañ jox déet dafa am lu ko jiitu dañoo def fii euh, kii nu ñu koy waxee parrainage moo daal dañ naan way nit ñi Amath Diop dafa xam ne dafa am mbooloo mbooloo bi taw ko ci ki de ci ay carte la ak ay bind yu leer nañ bañ defee parrainage moo fi jiitu tund bi yëpp parrainage Amath Diop moo fi jiitu tund bi yëpp na leer gars yi ah, attention kii kat ko ba bàyyi xel la ñu jël carte mandataire bi jox ko ko moo taxoon mandataire bi dafa waroon dellu si si loxoom waaye yooyu am na solo moom dina si ñëw alors bañ ko joxee mandataire bi mu ñëw gañeel président gañe bu leer nañ waaye comme loolu sa mbox loola ñëpp a ngi ci woon bi duñu xam ci ak kee moo tax fii nag ñu jël nag wi te nag wi dina fi daan nag yaakaar naa ne ci juróomi ñaari at yi ñu nekk dinañ leen euh, tey xamal tuuti rek ci yenn def def yoo xam ne jot nañ koo def fii ci Colobane suñu paree nag doo leen di wax fan lañ leen bëgg a yóbbu ci ni ñu ko tënkee ci domaine bi yu ñuy jëm bu ñu jëlee domaine u wàllu wér-gu-yaram gi conseil départemental dafa débloqué benn budget ci wàllu carburant teg ko fii tegoon ko d'abord ci euh, district sanitaire ba maanaam ca hôpital ba nekk Gossas foofu lañ ko defoon première at bi at bu nekk ñu ne képp koo xam ne da ngaa feebar ñu war laa yóbbu nga dem Kaolack wala nga dem euh, Diourbel ñu participer ci carburant ñu def at ñun ba ñu xoolee résultat bi gisuñu doomu kolobaan bu jógee fii ñu ñu jëlee la gosaas yóbbu kaw Kaolack wala yóbbu Diourbel wala yóbbu euh, Touba ma ne leen nañ taxaw parce que mbir boo koy def da ngay xam li ngay def li te ñun ci la bokk mbaam gàtt na wala ci guy ci jur gi la bokk kolobaan dafa bokk ci conseil départemental bi kon nañu jël te ñun indiwuñ gosaas pour ñu ñu yóbbu Diourbel kon nañ ñu tegal loo xam ne ñu nit dinañ ñu permettre au moins ñuy jëlee kolobaan di indi Gossas bu ko defee bu ñëweyaatee ñu mën a bokk ci lii dem gosaas li jógee Gossas dem dem Diourbel wala dem Touba wa illaa ñun buñ jógee fii rek li gën a yomb ci yow mooy nga dem Touba loolu moo tax ñu de ñu dégager euh, chaque année au moins deux cent cinquante litre de carburant at mu nekk ñëw teg ko fii képp ku fi jógee ñu war laa euh, def transfert ñu participer ci carburant bi kon loolu jot nañ ko faa def ñu def defit euh, euh, bi nga xamee ne Balla Badiane mi ngi war a quitter ñu toll ci jamono joo xam ne diggante bi pour ñu am infirmier wala infirmier bu nekk fii mu doon mu poser problème ñu proposer président conseil départemental bi na ko buñ ñu jëlalee ki nekk Gossas ki nekk Diabel dina mën a ñëw yor post de santé bi ndax am na diplôme yi am na xam-xam bi am na expérience bi conseil départemental recruter soxna si nga xam ne moo nekkoon jaabel ñu di ko fay ki ne woon jaabel mën a ñëw fii ci Colobane kon loolu it nañ ko sante conseil départemental te soxna soosi doon suñu soxna kon loolu day ndax mooy ña mooy ñaareelu moo duwaat <laughs> moom moom moom lañ jëloon fële ca jaabel kon Mame Fatou Cissé ci conseil départemental la tàmbalee ñu xam ne aussi euh, président dafa indi programme bu bees muy ay mutuelle de santé maanaam ngay faju te doo fay mais pour loolu dañ ko organiser ci ay mutuelle de santé yaakaar naa alaaj Mansour euh, Mansour Ndiaye jaaroon na fi léegi ci suba waroon na fee fekk ñu doon koo xam ne dañ koo war a dooleel ñun aussi bi ñu gisee loolu Ndaamal Gosaas euh, couverture mutuelle u Ndaamal Gosaas moom moo njëkk a démarré ñu ne nañu jël ay nit utal leen utal leen ay carte pour que ñoom it ñuy man di fa ñuy man di faju te duñu fay kon am na ay nit ñoo xam ne dañoo néew doole duñu fi nekk di leen lim ndax booy def dara te di ko waxe amul njariñ rawatina ndimbal yu mel noonu kon am na si ay nit ñoo xam ne ut jox nañ leen ay carte ñuy faju ci loolu te duñ ci fay dara ñuy ut aussi foo xamante ne lakk am na fa wala jëye am na fa sa secours dem na fa ñu jàppale la ci loolu conseil départemental tamit fexe na ba heure bu xam ne examen amee am na dinañu ñëw indi loo xam ne dinañ leen jàppale ci li ñuy dundee muy denrée yi de première nécessité dinañ leen indil ceeb dinañ leen indi diwlin ñu mën a def seen examen ci xel mu dal xale yi aussi mën a def euh, seen i examen ñu participer également ñu organiser fi ci benn euh, concours d'excellence boo xam ne au niveau départemental loolu bi ñëwee conseil départemental moo ko def ndax xale yi il faut ñuy jongante ci seen biir pour que ñuy am esprit yu jongante bi yaakaar naa Assane wax na ko léegi ci biir ka biiri waxam man lépp lu ma am lépp lu ma am poste bu ma taxaw rek dama ko def concours jongante ko jël premier ma jàll ñu jël ma fii aussi noonu la ñuy def jongante jël premier dem mairie parce que ñun gañe ñun gañe rek la ñu xam ñun gañe la ñu xam la yëg ni waxoon rek ñun gañe la ñu te gagné la ñuy def incha allah donc. ah waaw ci politique bi aussi euh, jiitu gi dañ ko tàmbali ci lépp ba dara desul lu may déposé liste bii nga xam ne ñun ñoo njëkk ci Colobane ñun ñoo njëkk déposé suñu liste ca sous lu ñu lépp lu ñu fiy def ñun ñoo ko njëkk def ca sous-préfet kon bu ñu demee di joxe résultat yi premier rek la ñuy jëlaat donc loolu loolu dañoo bëgg tamit mu nekk ci ndaw ñi ndax mooy tax ëllëg loo boo bëggee dugg ci dara nga xam ne doomu kolobaan bi ak doomu almadi bi ñoo yem képp yàlla mooy joxem xel da nga ciy góorlu gëm sa bopp nekk ci man cee am dara donc gëm sa bopp donc participer nañu ci loolu euh, l'amicale bi nga xam ne aussi étudiants yi am nañ ko mu doon amicalu départemental euh, CODEC boobu aussi chaque année conseil départemental dafay jël un budget jox ko ñu tàmbalee ci un million ba fi mu ne ñoom ci ay un million sept cent cinquante man nag sama relation ak ak ak waa ak étudiants yi yaakaar naa fii ay professeur a ngi fi ay enseignant a ngi fi ay infirmier ngi fii ñoo xam ne nekkoon nañ ay étudiant xamoon nañ ma étudiant xamoon nañ ma université ba ah voilà benn ancien étudiant nga ne la léegi professeur français la ma nga fee nekkoon na président Euh, AMEC maanaam ñi nga xam ne euh, ñoo yor kuréel gi nga xam ne euh, étudiants yi ñoo ko yor chaque année dañ leen a daggal loo xam ne ñun ci suñu soldu la ba ñuy ndaw ba ñu ba ñu mënee ba léegi loo xam ne chaque année dañ koy yëkkati jox leen muy taw ñu jox leen muy naaw ñu muy muy ngelaw ñu jox leen. lu tax parce que dañoo xam ne suñu ay doom la te université dafa métti métti métti ba mooy da ngay fay booy lekk da ngay fay fa ngay tëdd da ngay fay li ngay jànge da ngay fay li ngay déplacé woo te ñu doon ay doomu baykat comme ñun kon boo amul lu la dimbalee du sotti ñun nag loolu ba ñu ko comprendre la ñu ne nañu jàppale étudiants yi te yàlla xam na ne ñun amuñ jot booba jafe-jafe ndax ñun mosuñoo jaar université boobu yàlla moo dagal ñu jaayee jaaree polytechnique de Thiès léeg-léeg nit ñi di wër fii di coow di wax am njàng mu rëy njàng mu rëy njàng mu rëy en tout ñun concours bi ñu gagné concours bi ñu réussir fii ba ñu koy réussir ci département de Gossas kenn réussiru ko muy école polytechnique de Thiès ñu dugg fa di jàng ñu di ñu jox li ñuy lekk ñu di ñu ko jox li may li may fi ñuy tëddee ñu jox ñu suñu chambre individuelle li ngay sol ñu di la ko jox li ngay jànge kay kaye yaag livre yaag big yaag gomme yaag critérium yépp ñu di la ko jox boole ci di la jox budget xaalis loolu doon nekk assi assi assi assi fonctionnaire te loola nag bañ ko amee it foofa ñu no nekkoon fa la ñu commencé ñun daan dimbale étudiant ndax booba étudiant yooyu nga xam ne ña nga nekkoon université a commencé ça par mon ami et frère Ousmane Wade booba ma nga nekk étudiant may jël samay ticket daan ko yóbbul di ko di ko ci jàppale kon man ba ma tàmbalee jàppale étudiant du tey ba ma tàmbalee jàppale étudiant du tey bi ci mujj nag mooy bërki Dembo Ndiaye maa ngi ànd ak sama professeur Moustapha Sall ñu dem euh, euh, ki ñi nga xam ne ñoo yor wàllu hébergement yooyu ñu jox leen chambre boo xam ne pour jigéen ñi entière am am six lii yoo xam ne jigéen ñi ñëpp danañ ca mën a dugg utal góor ñi aussi chambre utal leen aussi ay convention bi ñuy nekk en 2014 dëkk yi nga xam ne dañoo amoon courant fii dañ leen di compter ma toogaat sama bureau bind sama euh, mémorandum dem giseenteeg waa ASER expliquer leen na leen dëkk Colobane yi yépp amuñu courant di ñaan yàlla na di leen ñaan pour ñu may ñu ca courant ñu xamal ma ne programme bi yii yëpp munuñ cee dugg munuñ leen a dugal waaye bàyyil ñun dinañ lay dugalal par benn dinañ lay dugalal par benn ba baa lépp di mat ndax président de la république ut na benn programme bu ñuy wax programme national d'urgence d'électrification rurale maanaam fii ba deux mille euh, vingt cinq dafa bëgg dëkk yëpp am courant waaye munuñ jékki-jékki rek fii ba deux mille vingt cinq ñëpp amandoo kon day am dëkk yu ñuy am tey ñi am deux mille dix neuf ñii 2016 ñii 2017 ñii 2020 ñii 21 ñi 22 ñii 23 ñii 24 ba 25. mais li lay boole nag ci ci bees bees bi mooy nga bokk ci ñi nga xam ne dangay am ku leen di lijjanti ca loola ca la ñu dox dem ca ASER ba ànd ceeg ASER ba tey gii nii wax coow lu ne jib fi coow lu ne dégg na waaye courant wu Arelde Diabel courant wu jaabel courant wu Boustane courant wu Ourour courant wu Daaru Ndiaye ak waa ASER la d'abord. te amaat Diop la ñëwee jagsaaw après la maanaam programme boobu dafa njëkk a ñëw po loolu ñëw nag moo indi la ñëw jagsaaw moo indi la ñëw euh, euh, benn moo indi la ñëw njaxatu bo waa nesaw na it fàttewuma leen mooy indi it lii nga xam ne mooy ñëw ci jamono yu gàtt fii ci euh, taaleen ak njaañ sangari ak li ko jàll tekk li ko wër jàll xaayaan loolu ci programme boo xam ne président de la république moo ko teg waaye dafa am ay yoon wooyu yooyu jaar pour nga àgg fa te yoon woowu dañ ñu dañ faa nekk ba pare ku fa ñëw fekk ñu fa. local 2022 yi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal ci ànd bi ngeen ànd ak APLB APLB nag moom mooy association des professionnels de la presse en ligne du ñëw fas yéene ànd ak sunu mbokk yi nga xam ne nii ñoom ñooy way tànneef yi di candidat yi nga xam ne nii ñoom ñoo fas yéene dem ci eh, élection gox yeeg goxaan yi. local 2022 nag mbokk yi APLB ñëw ba fi nga xam ne moom mooy diwaanu kolobaan Colobane Signy danañ ci dikk ci nu mu gën a yaatoo ñu ngi toog ak euh, candidat bi nga xam ne ni maanaam moom dañ koy bàyyi mu présenté wu ñu gën koo xam ci Amath Diop nekkoon deuxième vice président conseil départemental bu Gossas le temps que ma ànd ak maa ngi ci ànd ak nag ki nga xam ne moom mooy Birane Diop ci laaj bi moom itam di sama naataango waaye lëkkalook nag mbooleem presse en ligne bi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci association bi ñoom ñëpp ñu fas yéene ànd ak yéen ci waxtaan bi le Birane ñu bàyyi lan nga daal di nuyoog sunu gan gi. jërëjëf Sidi comme ni nga ko waxee ñu ngi nuyu mbooleem ñi nga xam ñoo ñuy topp ñuy fàttali ne appel bee la ñuy àndal mooy association des professionnels de la presse en ligne du Baol tey nag génn nañ Baol ñëw ci diwaan bu Saloum mën nañ ko wax wala Sine dañu ci euh, région bu Fatick département bu Gossas ñu ngi fii ci commune bu colobaan ni ñu leen ko diggee woon nag ci appel bi ni ko ñëpp déggee woon fu candidat nekk ci Sénégal li ñu gënal mooy fekk ko fa mu nekk waxtaan ak moom lu jëm ci programme moo xam conseil départemental wala commune tey nag ci commune bu Colobane lañ nekk fas yéen ci ànd ak Amath Diop ni nga ko waxee sànq muy candidat ba coalition àndu nawle fii ci diwaan bi fas yéene waxtaan ak moom lu jëm ci programme am li nga xam ne moom la waajal jëmale ko ci ñi nga xam ne askanu Colobane suñ ko falee ngoonuk 23 janvier 2022 ni nga ko waxee sànq dañ koy bàyyi mu nuyoo ak askan wi su noppee ñu ñëw ak mu laaj ak tontu président ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum euh, maa ngi nuyu mbokk yi ñuy seetaan ñëpp di la di nuyu sama naataango yi ma toogat di leen nuyu yéen it ñi nga xam ne yéen a def déplacement ñëw fii ci kolobaan euh, di leen wax dal leen jàmm fii ci si ñi Signy euh, ah, Sidi wax na ko léegi. Colobane Signy la du Sine Signy nag mooy Signy ak Signé dañoo bokk ci siin bokk ci Saalum bokk ci Bawol nekk ci diggante bi moo tax ñu naan ñu Signy ak Signé fii mooy Colobane dal leen jàmm jërëjëf. jërëjëf mbokk yi kon dégg ngeen Amath Diop da xam naa nag ci ay présentation amoon na fi euh, dañ ci dañuy daal di sóobu rek ci waxtaan bi Amath Diop euh, lan la ingénieur polytechnicien di wut ci langu politique. waaw Sidi maa ngi lay nuyu xam naa sa question bi nga tàmbalee moom provocation dëgg la nga xam naa euh, ingénieur génie civil wala ingénieur rek d'une manière général dafa doon ki nga xam ne day suqali ay gox dafa jàng li jëm ci luy suqali gox kon bu yàlla dogalee politique doon l'art de gérer la cité maanaam li nga xam ne moom la ñu yoree gox yi kon ñi nga xam ne ñoo jàng mbir mi war nañ cee mën a dugg dafa fekk ne réew mi dañoo soppi politique ba buñ ne la politicien nga sax dangay ngay daal di bëgg bëgg a gis sa bopp waaye ñi nga xam ne ñoo am xam ñi nga xam ne ñoo am ay lu ñu mën ci gox bi ñoo war a jóg di politique ñoo war di jub joyanti euh, ñi nga xam ne ñi ngi def ay erreur te su ma lay joxee exemple fii ci fi ma nekkit rek euh, bu yàggul dara euh, ndaw boo xam ne ingénieur la comme man joyante ne fi loo xam ne ci wàllu politique la ndax ñu dem ci wàllu ay ndox adduction de ñu war a jox ay askan ndox nga tànn ay tiwo yoo xam ne baaxul par exemple euh, xamoo ne tiwo am na tiwo yu jëm pour ndox pour naan am tiwo yu jëm pour évacuation boo jaxasee loolu ab ingénieur moo jubbanti loolu moo joyanti loolu kon day jaadu ingénieur yi nga xam ne am nañu xam-xam euh, xam dara ci yorenu gox ñu war a dugg ci politique bi ngir soppi xarkanu dëkk yi ndax lu lu jëm ci investiture investissement yi lu jëm ci infrastructure yi loolu lu ñu jàng la lu jëm ci wàllu ndox wàllu courant wàllu aménagement territoire wàllu euh, euh, dëkkuwaay loolu yëpp ingénieur bi daf koo jàng te comme fi ne politique bi mooy décider ñu fexe ba ñi xam di bokk ci ñiy décider loolu njariñ la cib gox donc loolu moo dugal polytechnicien bi ingénieur bi ci politique bi wax na ko si di ingénieur bi dugg na ci politique mais li ñu seetlu mooy moom amat Diop bokk na ci opposant yi nga xam ne ñoo gën a taxaw ngir jàkkaarloo ak l'actuel maire ñu bëggoon na xam lan mooy sa problème ak l'actuel maire. waaw <laughs> non yàlla dogal na sax fi mu ne actuel bi xaw na arrière parce que dama ne bërët rek mu daal di arrière daal di am ku ma tegal ci en face actuel maire bi suñu góor la suñu papa moom moo fi nekkoon ay fukki at ak nàngam waaye. Euh, la fa mu xamoon la mu mën fa ko xam-xamam yam da yam ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla guddal fanam yàlla yokk euh, mën-mënam waaye euh, nit mënul def lu mu mënut nit mënul def lu mu xamut comme yàlla dogal na kolobaan boobaak léegi bougé wut doxul li fi manqué dafa bëri feebaru màgget la te yorin bi ñu ko doon yoree mooy yorin boo xam ne da ngay toog di xaar lu jógee ci état di ñëw ci réew mi di ñëw ci kolobaan lépp loo xam ne lu kolobaan am rek c'est parce que yeneen gox yëpp am nañ ko te mairie da ngaa war di jóg di dem di fekki programme yi di fekk projet yi di fekki ministères yi moom nag doxaleewul woon noonu ah ñun yàlla dogal ñu am expérience bi am ex qualification bi am xam-xam bi am relation yi comme day day jaadu ñu ñëw dugg ci làngu bi biñ ay la yëwén ñu bëggoon mooy ànd ak moom di ko jàppale waaye jàppale bi politicien dafa fiir day jàpp ne tout de yow da ngay jël place am ñun na comme question place yu yëkkatiwuñu li ñu yëkkati woon mooy lu suqali gox bi ñu taxaw nag ne comme ay la lii ñu ñëpp ko bokk lu ñëpp bokk la nañu ñëw taxaw ñu nit samp suñu ndëng jàkkaarloo ku ñu koo xam ne pare nga rek ñu jàkkaarloo yow moom nag retiré wu na provisoirement ndax euh, mi ngi ba tey mi ngi ci liste yi mais dafa am keneen ko mu teg moo nekk liste ma première liste ci majoritaire bi moom mu nekk première liste ci euh, premier ci liste suppléant yi kon euh, dafa xaw a def retrait rek waaye bàyyiwul à cent pour cent loolu daal euh, mais doonut ay opposition farouche ci la personne du maire au contraire ñun lu suqali gox bi daal mooy suñu kii. Mhm. da naan lu suqali gox bi moo tax ngeen jóg xëy na loolu la mais gis nañu tamit yàgg nga. taxaw di opposé wu ak moom ñu bari dañuy laaj amat Diop amul benn poste buñ ko war a buñ ko mas a fal fii au niveau de Colobane kon lan mooy secret ba mu yàgg taxaw noonu di di di wujje ak ñi nga xam ne ñoo nekk te daanul ba tey. waaw secret bi mën naa la wax ne lépp dëgg rek moo ko lal maanaam li euh, nga xam ne moom laay politiquer wax dëgg laay def jëf dëgg laay def du ma dige lu ma mënut du ma wax lu ma xamut euh, yàlla dogal it nag comme ni ma ko présenté woo léegi ma am une expérience. maanaam yàgg liggéey ci gox wàllu euh, luy suqali gox bi am aussi ay relation yu baax ci ñi nga xam ne ñoo yor programme yi projet yi euh, qualification bi ma am it doon ingénieur ñu ci bëri tey dañoo ñii damaa jàngandoo ak ñoom ñii damaa liggéeyandoo ak ñoom tey ma def am fi wayu rafet ca liggéey ba may liggéey kon ñooñu dinaa ci mën tout le temps di su ma gisee dara ma mën a daw comp indi ci suñu dëkk muy Colobane loolu moo tax jafe-jafe askan wi. fu mu jógee rek dañ dañ ñuy gis lu ñu mën a lijjanti ci suñu doole ñu lijjanti lu ñu mën a lijjanti ak gouvernement bi ak ministère yi ñu dem ci ministère yi lu ñu mën a lijjanti ak projet programme ñu dem ci projet projet programme yi ba loola saafarawu loolu moo tax aujourd'hui askan wi tamit gis ne ñoom lu lijjanti seeni problème lañ bëgg moo tax booba ba léegi mayit ma taxaw man na di jàmbaar ku fi ñëw ku ne indi na fi doole bu ne ñëw na fi waaye man visé wu ay post nekkuma ci dëgëral poste pour saafara askan wi ànd ak euh, pour saafara jafe askan wi ànd ak askan wi loolu moo ma tax a jóg te loolu moo tax ma ànd ak euh, askan wi boobu ba léegi mën a taxaw ku fi ñëw ma mën a jàmbaarloo ak yow. Mhm. doo maire euh, mosoo nekk maire waaye ñi ne boo doon def tey wala boo ko yombut ngay def ab bilan ci dëkk ba nga xam ne nekkoo fa maire loolu. est-ce que nekkul ni dangay ngay présenter bilan conseil départemental ba fa nekk ngir sukkandiku ci ngir am ay ambition ci mairie Mbacké euh, mairie bu Colobane. Euh, am na ñuy wax loolu ndax xam nga des fois da ngay dégg euh, ñu ñoo xam ne dañ naan ma mën naa def bilan conseil départemental je rappelle que man deuxième vice-président conseil départemental la donc man un élu rek la li tax nag ma mën a ñuy tudd conseil départemental di ma tudd c'est parce que dafa am un plus boo xam ne am naa ko. loo xam ne mën naa koo lijjanti ci dëkk bi mën naa koo dox ci di dëkk bi mën naa koo bind ci dëkk bi mu doon lu jariñ gox bi à travers sama expérience à travers sama qualification ba tax na conseil départemental naam euh, def na fi ndax jafe-jafe boo xam ne am nañ ko tama xam ne mën naa lijjanti réglé réglé wu ci conseil départemental dama ko fay yóbbu mu ñëw mu saafara parce que man la askan wi diis su ma xamee ne lii mënut dem ci conseil départemental ma yóbbu ca ministère ba wala ca projet programme ba ko mën a lijjanti ma ñëw ma ne bu doonee lu xaj ci sama doole ma yëkkati ma faj donc billan bi nga xam ne jot naa ko fee def fii te aggul lii dafa bokk ci loo xam ne ci conseil départemental la jaare lii ci ministère yi lii ci projet lii ci programme teyit nag bu ñu waxante dëgg ab euh, gox kenn du ko yor ci doo poos kenn du ko yor ci doole ci partenariat nga koy yore partenariat bi nag ñëpp ci lañu ñu conseil départemental dafa war a nekk un partenaire de la commune waaye warul nekk opposant bu fiy def ñu di ko créer problème Euh, mairie bi dafa am war a am partenaire ak diaspora bi ak doomu dëkk bi ak ñi fi dëkk dafa war a am partenariat ak ñi nga xam ne am nañ xam-xam da nekk ci dëkk bi am partenariat ak ministères yi ak projet yi am ouverture yépp loolu euh, euh, cadre fédérateur boobu moom la ñu bëgg a créer fii ci Colobane waaye te loolu it moo ñu may ñu mën a am un bilan élogieux fii ci biir Colobane yéen ñëpp ay mouvance présidentielle ngeen bokk ak sa adversaire politique bu nekk ci diwaan bi mais Amath da nga dem bëgg euh, préférer euh, maanaam jël sa décision boobu que décision président de la république moom mooy ci nga duggee ci ànd nawle bi est-ce que xaaroo ci ay sanctions. déedéet xam nga ku ñuy sanctionné mooy ku ñu tere man kenn terewuma bi may def lii au contraire dañoo xam ne bi ñuy joxee li joxe euh, mandataire bi ci beneen côté bi yeneen i critères la ndax critères yi mooy waa département wu Gossas ñi fi nekk maire ñëpp dañ leen a delloowaat. seen seeni mandat ki fi nekk ñu di ko delloowaat moom mu ne euh, sama doom laay jox ki ma jege laay jox ma nag ma doonoon koo xam ne maa ko jiitu ci politique bi maa ko jiitu ci dëkk bi maa ko jiitu ci relation yi maa ko jiitu ci nit ñi ci jafe-jafe askan wi jiitu ko ci parti bi ah euh, comme président bëggut tamit juuyoo ak xëy na bëgg-bëgg boobu nga xam ne wala li mu defal yeneen maire yi ñu defal ko ko ñu bàyyi ko moom kam ne moom lañ jox mu jox ko man aussi ñu bàyyi ma ma présenté ku gagné euh, resté njabootu président la wax na ko vidéo nañ ko fu mu foo xam ne xam na ne lépp njabootam la au lieu que mu ne ma sàmm toogal ma dem ba demal day bàyyi ñeen ñaar ngeen dem ku gagné rek mu xam ne njabootam a gagné te fii njabootu président rek a fi nekk fii président rek a fiy gagné mm-hmm. ala kulia ragaloo ñu jiin lañ ne da nga ay projet wu état xam nga projet wu état détourné euh, projet wu état c'est pour askan wi la loolu projet wu état dafa war a jëm ci askan wi te ñi nga xam ne ñoo gën a njaxlaf maire yi gën a njaxlaf euh, acteur yi citoyens yi gën a njaxlaf ñooy dem fi ñuy laajee ñu ut ñu jox leen ñu indi leen donc man ci noonu laay def laay utiliser dem laaj ñu indi indi kolobaan euh, jox leen mu doon njariñ ci kolobaan mais du détournement. xam naa danañ ñëw léegi ci programme bi Sidi mais dama ko bëggoon laaj rek euh, candidat bi nga xam ne moo nekk fii moom candidat la boo xam ne. mi ngi ko doon ci kàddu président Macky Sall ndax moo ko fi jiital comme tête de liste ndax candidat bu mel noonu bu coalition Benno Bokk Yaakaar nekk au yow mi nga xam ne yaay ñëw ngir jàkkaarloog moom jàpp nga ne di nga ko mën a gañe ak moyens yi nga xam ne moom yëpp amee na ko. waaw dinaa ko gañe ci lu wér lu wér laa la wax dama koy gañe parce que gañe bi doonut ci moyens tey ci moyens démb ak bërki démb la ñun fii dañoo doon dëkk dëkkab ngor dëkkab diine dëkkab xam Euh, démb tey soog a ñëw gis nga dama koo jiitu ba may jóg jógut damaa jóg ci ndox mi saafara jafe-jafe askan wi ci ndox mi jóg ci njàngale mi saafara jafe askan wi njàngale mi jóg si jigéen ñi saafara leen ci wàllu formation wàllu financement wàllu moulin yi wàllu euh, faj seeni doom wàllu circoncision lépp wàllu sociale lépp ma jiitu ko ci tey soog a ñëw léegi nag moom dafay dabe kii dabe force mu indi alal ju bëri tuur ko dana indi alal yu bëri askan wi dina lekk alal gi yëpp waaye man la ñu voteel lu leer laa la wax. Euh, mais foo teg ne yow la voteel ci dëgg ci dëgg laa ko teg dama ne la ñit ñi dañoo am ngor. gore xam aussi seen njariñ ki leen di jariñoo ak ki leen di jariñ ndax fii ñu toll jariñ la ak jariñoo ki nga xam ne dafa bëgg a teg tànkam ci seen ndond pour jóg dem ca kaw. ak ki nga xam ne dafa bëgg a ñëw di leen doon lantinoor lu ñëw jaar ci moom jàll ci yéen askan wi xàmmee nañ ko léegi lii olof yi naan koo yaakaar ne dof la ma ngay uti ma ngi ca pharmacie ba di ut loola fajee loolu looloo fi nekk sénégalais yi léegi dañoo xam bu baax politique soo ñëwee nag di leen jaay doole di leen jaay maa am maa mën ah li nga am danañ ko lekk parce que xam nañ ne euh, xaalisu euh, nguur la xaalisu nguur donc dañ koy séddoog yow. xam nañ ne xaalisu nguur la euh, da ngay laaj benn commune muy Colobane te gis nañ ne communes yi nga xam ne ay commune rural maire yi ci nekk ay jafe-jafe la ñuy jànkonteel li ko waral jàpp nañ ne recettes yi nga xam ne mooy génn muy ay recette jàpp nañ ne bariwul yow boo ñëwee ci lan nga war a mën a sukkandiku ba def li nga bëgg. waaw question bu am solo noonu ndax ñun li ñu tardeel tey fii suñu dëkk mooy ci suñu recette yooyu rek ci la ñu yem ak li nga xam ne moom la état di indi. xam nga euh, commune dafa am source de financement yoo xam ne ci recettes yi la jóge maanaam taxes yeeg yooyu am loo xam ne état moo la koy jox muy fonds de concours yeeg de d'investissement mais am loo xam ne partenariat la partenariat nag dafa large ak ouverture bi partenariat yaay mi ngi tàmbalee ci say doom d'abord nga fexe ba doom yi nga xam ne dañ faa juddoo yaroo fa xam dara mën dara nga permettre leen ku am idée de projet bu rafet nga bàyyi ko ñëw def si partenariat bi mi ngi ci ci bitim réew am nga ay doom yoo xam ne ña nga ca bitim réew bi am na ñu ñu xam mën nañoo indi nga yaatal leen ñu indi partenariat bi tamit mooy am nga ay relation yoo xam ne ma nga ci bitim réew ñoo ñit mën ngaa signé ak ñoom ay convention ñu ñëw ñu defaral la partenariat bi aussi mooy ministères yi dañuy am ay projet ak programme yi jëm ci collectivités yi porte d'entrée yi di collectivités yi loo xam ne peut-être ñu ne cent collectivités la jëm te ñu nekk cinq cent et quelque wala ci dix collectivités la nekk la jëm ñu nekk cinq cent et ñi gën a njaxlaf moo ñoo cay àgg ñi nga xam ne xam nañ ñoo cay jotale ñun nag comme yàlla dogal na xam nañu yoon wi xam nañu fañ koy jëlee donc am nañ tànk yi donc dox dem jëli ko dong lay doon ñëw indi sukkandiku nag ci partenariat boobu pour yor Colobane incha allah. xanaa looloo waral maanaam sa complicité ak say militants gis nañ ne maanaam euh, da ngeen di gën a maanaam jaxasoo euh, secret yi maanaam lan la lu ko waral. waaw xam naa ni ma ko waxee rek mooy. Euh, li ma li ma li ma li ma wax foofu comme ni ma ko waxee sànq rek mooy euh, dëgg gi nga xam ne ñoom laay séq ak ñoom xam nga fi mu ne politique euh, politicien dañ ko définir comme ku dul wax dëgg léegi euh, damay dégg ñuy nettali ñu ne dafa am benn accident bu amoon am ñu ne ay politicien lañ am ku ñu ñëw ñu gaañu ñu ne benn waay bu fa nekkoon. Euh, ñu ne fii de ñëpp gaañu nañ nañ suul mu daal di suul am ku ne déedéet maa ngi dund maa ngi dund mu ne noo waxi politicien la daal di suul ñu ñëw ñu ne ko ah lii lu fi xew ñu ne ay politicien lañ de mais ñëpp a dee suul naa ñëpp am na ko doon wax déewuma déewuma waaye waxi politicien la xam nga loolu image bi li muy waxee mooy politiciens yi dañoo dem ba di gëmloo nit ñi loo xam ne nekkut bu campagne yi ñëwee ngay diggee loo xam ne mënoo ko suñu la falee nga dem bàyyi leen doo leen gestu ñun nag dañoo tàmbali ak di leen wax dëgg nekk aussi ci dëgg ci li nga xam ne moom la ñu yar moom la ñu xamee ñi ñu xamit ci suñu expérience professionnelle ak ci suñu entourage personnel ci suñu entourage familial lépp ci dëgg lañ ñu xamee dëgg googu nag ah moom la ñuy moom la ñu utiliser ak suñu militants yi ba complicité boobu man di xam xam ne euh, li ñu soxla suñ ñu ko diisee suñ ne leen lii danañ koy def dañ da di wër nañ koy def suñ ne leen lii mënuñu ko daleen leen na tey lii moom mënuñu ko moo tax euh, boobaak léegi ba ñu commencé ak léegi it euh, évolution rek lañ ci gis yokkute rek la ñuy gis ci militants yi. alors ñu daal di jàll ci li nga xam ne moom mooy programme bi ñu ngi door campagne bi mais askan wi am na lu mën a teg seen loxo loo xam ne maanaam dana leen jaral ba dara du leen maanaam euh, waññi pour ñu mën a vooteel ak naka nga fas yéene demee ci loolu. waaw xam nga loolu dafa mel ni da ngay bëgg a wax xëy na xanaa achat de conscience yi bu mën a dévier. population am na ñu mën a dévier du mën a déet ndax mooy jariñ mooy campagne bi ñëpp yemuñ olof ñaay nee na bu ñëpp yemoon am ñu euh, gedd seen cër euh, donc ñi nga xam ne moom garde wuñu seen ngor wala ñi nga xam ne amuñu xel danañ leen nax ndax dinañ jël lu dul dëgg bëgg koo def muy dëgg jël dëgg bëgg koo def euh, lu dul dëgg waaye jàpp nañu ne ñi nga xam ne ñoo ëpp ci réew mi rawatina suñu gox bii nga xam ne ay pël fi nekk ay séeréer olof naar looloo ñu composé wu te ñun ñooñu dafa am lu nekk ci suñu deretu siñi siñi dañoo dañoo fonk suñu kàddu suñ la waxee ne lii moom laay def loolu rek lañuy def te du ñu wor loolu ñu aussi ay workat euh, gerte nag boo ñëwee da nga fi fekk ay benn benn yàqu pour yooyu danañ dem sa ñoom waaye lu baax li ci fi ci ñun lay féetee si incha allah. ñu ngi lay dégg sànq ci biti yaa ngi def bilan wu conseil départemental ci commune bu Colobane ci ay compétence am yu conseil départemental lu mel ne éducation ak santé waaye tey jii dañuy dugg ci sa programme ni ko ab Abdou waxee euh, bu yàlla dogalee li ngay yootu nii nga jot ci mooy la mairie de Colobane euh, bu ñu diggoon ci santé rek ndax jàpp nga ne maire bi li mu fi def doyul ak yow boo ñëwee lan nga war a def. waa effectivement comme li ma wax rek mais xam nga def-def moom benn du mat mm-hmm. donc amul kenn ku mën a matal lépp loolu yàlla rek moo ko mën. waaye ngay sabablu dafa am solo te kolobaan euh, fii ci wàllu santé bi mm, feebaru màggat la féppay metti ndax euh, tey jii nii boo demee bëri na gox yoo zone yoo xam ne dañoo war a am ay poste de santé te ndax méngo mate na ko boo demee zone bu mel ni tekk balol diggante boobu pour ñu déplacer wu ñëw dañuy sonn pour faju amoon na fi ay case de santé yoo xam ne am na fi fi mu ne yu ci bëri benn fonctionné la fi poste de santé bi fi nekk état bi mu nekk dafa sonn état de délabrement avancé euh, gestion bi doy waar euh, matériel yeeg équipement bi manqué euh, ba tax na yeneen poste de santé yi fi nekk ñett yi fi nekk ba ñeent muy Gayna muy Jaabel muy Muré boobu aussi boo ci dem bu ne ay problème mu kese nga fay nekk médicament yi day manqué donc soxla nañu lu leen dollal kon aujourd'hui aussi toll nañu foo xam ne war nañoo mën a am centre de santé donc war nañ cee mën a dox pour relever le plateau médi technique médical donc loolu euh, bilan boobu si boobu la ñu def moo tax ñun ñu xalaat ne war nañoo proposer ci axe yooyu nga xam ne lu ay manquement la fexe ba relever le plateau technique doon ci suñu programme maanaam fexe ba poste de santé bi nekk Colobane nekk un centre de santé ñu mën a am euh, spécialité yépp dootuñ jóg di dem Touba wala ñuy jóg di dem Gosaas pour faju te Colobane doon ci yoon boo xam ne euh, ay màggal ak yenn événement yi fi xew euh, yu ci bëri nit ñi dañ fiy ñëw di war a faju mu doon it dëkk bu am ginnaaw boo xam ne euh, war nañoo am spécialité yépp pour mën a faju correctement case de santé it yi nga xam ne am na ba pare nga xam ne assisté matron yeeg formé yenn nit ña nekk foofa utal leen équipement matériel ñu mën a fonctionner laat loolu dafa bokk ci suñu programme euh, personnel bi également fexe ba ñu am un personnel de qualité di appuyer collectivité euh, poste de santé bi en médicament en personnel en matériel en équipement loolu aussi dafa bokk ci programme bi nga xam ne fas nañ ko yéenee def ci euh, bu ñu yàlla dimbalee ñu gañe xanaa ñu dem ci beneen secteur rek muy wàllum éducation xëy nañ ne bokk na ci compétence yi nga xam ne mais war na ci mën di dugal loxoom yaa ngi lim sànq ne ay CM ak yooyu yoo xam ne conseil départemental taxaw na ci waaye en tant que maire tamit soo ñëwee xëy na am na leneen loo xam ne waajal nga ko mu jëm ci éducation itteel commune bu Colobane yooyu noonu yan la. waaw euh, bu dee wàllu éducation bi également euh, dañoo toll ci jamono joo xam ne fi mu ne euh, waratuñoo wax abri provisoire te ba nii may wax ak yow am na ci barab yoo xam ne. Euh, écoles yoo xam ne dañoo am ay abri provisoire donc loolu dañoo suñu programme mooy ñu fexe ba zéro abri provisoire mooy nekk ci Colobane dootuñu fi gisati abri provisoire loolu nag euh, projet la boo xam ne danañ inscrire ci budget bi yoo xam ne danañ ci danañ ko def yi ci des it dinañ dem DCS mooy direction construction scolaire am nañ ñoom it un programme zéro abri provisoire ñu intégré ñu ci pour que Colobane ñu éradiquer ci éradiquer ko fii ay abri provisoire boo xoolee écoles yi fi nekkit yi nga xam ne muré nañ leen bëriwuñ dinañu fexe ba dinañ jéem a muré école yooyu pour que euh, ñu mën a sécuriser euh, écoles yi wàllu euh, cantine yi bëgg nañoo développer cantine yi ba écoles yi nga xam ne ñi ngi fi nekkit pour man di jàppale yenn askan yi ndax boo xoolee école Colobane yi dafay dafay am ginnaaw day bëri dëkk yoo xam ne seeni xale yi fa ñuy jógee léeg-léeg dañuy dox un kilomètre deux kilomètres pour ñëw xale nag bu 13 heures jotee wala di jot nga war koo mën a permettre mu jël loo xam ne dina ko may doole ba mën a continuer dégg li ñuy wax loolu it bokk na ci programme di assister fexe it ba ñu jéem a uniformiser comme à l'image du président de la république ni mu ko xalaatee ci wàllu euh, tenue uniforme yi ñu am une euh, un partenariat avec tailleur yi nga xam ne ñu ngi fi Colobane ñu nga xam ne en tout cas commune Colobane ku ku xool e, élève bi rek xam ne fi kii école colobaan lay jànge di leen jàppale aussi ci fourniture yi jàppale euh, ñi nga xam ne mooy néew di doole yi di leen jàppale aussi ci équipement yi équipement euh, salle de classe yeeg ak matériels yi ñuy jànge loolu aussi bokk na ci euh, projet yi bokk na ci aussi ñu organiser une journée d'excellence de l'éducation boo xam ne dañuy primer l'excellence l'excellence nag du yem ci élève bi rek bi fiy jàngee danañ dañu primer cycle bi yëpp ak enseignants yi nga xam ne journée éducation lay doon étudiants yi sax dinañ xool ci étudiants yi nga xam ne ñoo nekk Colobane kan mooy meilleur étudiant bi élèves yi kan mooy meilleur élève enseignants yi kan mooy meilleur enseignant professeur kan mooy meilleur euh, professeur donc loolu it bokk na ci mesures yi nga xam ne fas nañ ko yéen a euh, def ci wàllu éducation voilà voilà donc euh, monsieur le maire euh, dafa mel ne euh, ci maanaam plan boobu noonu ngeen nekk yu ci bëri damay jàpp ne ay la lañ koy mën a tuddee muy ay ambition yi jàmbur yoo xam ne nii da ngay njëkkantu en tant que yow mi nga xam ne peut-être da ngay yore passation de marché public wala boog PNDL bi nga xam ne maanaam da nga fa am ay loxo wala ay tànk moom moo tax ngay profité ci yooyu noonu ngir mën ko indi Colobane. plagiat ci jëlee ko ci kan. jële ko ci ay xalaat ki nga xam ne moom ngay wujjeel tey. déedéet ki wujjee moom dafa jàpp ah, parce que ñu ngi ne lu ci bëri moom moo koy réaliser moom mooy dox ba mu sotti yow nga ñëw mottali. wala boog nga fekk nga siif ko ci moom. <laughs> non dina nag yaa may dafay ree yow ki ngay wax moom defagul dara fii man rek maa fiy def ki ngay wax defagul dara billant aussi defagul bilan wala moom la mu war a def nee na du def bilan loolu dinaa si ñëwaat waaye joxeegut tamit programme daf ne am na programme cent page moom la cent bu amee plagiat kooku moo plage parce que y a un document bu ñuy wax PDC boo xam ne moom moom la euh, commune bi def avec l'ARD ma ci profité pour dire que ARD démembrement wu collectivité bi mooy représent wu temps wu PNDL ci région bi donc programme yi PNDL di réaliser ci ARD la koy jaarale ARD euh, PNDL daf caa am loxo bu wër donc euh, PDC boobu ñoom ñoom loolu la ñu jël yi ne dinañ def seen ab programme boo xoolee PDC ba cent et quelques pages la nee nañ ñoom seen programme cent pages la euh, nee nañ un milliard la ñuy def par année PDC boo fa demee da nga fa fekk un milliard et quelque man waxewuma foofu man dama def sama programme sur la base de visite de terrain yu ma def sur la base de vécu bu ma am dem ci askan wi waxtaan ak ñoom ñu jox ma seeni jafe-jafe man noté ma booleeg sama xam-xam. ak sama expérience ak PDC boobu it nag ndax foofu it bëgg-bëgg askan wi ña nga fa ma xool ñoom it bëgg bëggoo lan la ca ma seppi ne lii laa jàpp ne lii mën naa ko def dinaa leen jox un programme réaliste et réalisable loo xam ne mën naa ko te am naa fi ma koy jëlee waaye du ma toog fii rek di leen révéloo ne dans deux mois Colobane dina mel ni Dubaï wala dans deux mois Colobane dina mel ni Mbàkke gii euh, non c'est pas ça dañ leen di wax step by step li nga xam ne mën nañ koo def tout de lii la te moom lañ fas yéene présenté euh, ci kanam ci population bi. bi muy lim sànq bilan conseil départemental mu ngi wax wàllu adduction ci wàllum ndox mu ngi yokk ndox mi eh, jàpp nañ ne am na loo ci def yaa ngi tooñ sax naan ko tuyoo yu nga indi du tuyoo pour ndox waaye bi nga koy wax rek am na ñu am na ñu lay interpellé xam nga yaa ngi koy déggam déet naan la ñun nag moo wane ne dans la commune ndox mi manqué na fi. loolu tamit bëgg nañ nga ñëw ci li nga waajal. effectivement ba léegi euh, besoin wu ndox dafay nekk gis nga ci suñu programme bi boo xoolee nañ ko décliner dañ ko décliner ci en terme de progression chiffre un damaa def un trois quatre huit un comme vision trois comme axe yi comme axe euh, accès universel yi comme à l'image de euh, PAP2 président de la république xëy na bu plagier am xanaa foofu laa war a plagier <laughs> accès quatre accès yooyu ndox da cee bokk maanaam accès à l'eau cest dire ndox fu waay nekk ndox daf la fa war a fekk accès à l'électricité fu waay nekk courant daf la faa war a fekk accès à santé fu nekk aussi santé daf la faa war a fekk euh, accès à l'électricité donc loolu ndox boobu dañoo bokk ci li nga xam ne dafa gën a métti fii ci Colobane moo tax ñun bi ñu jógee ñu jëmlu jublu ci euh, wàllu ndox mi dem lijjanti forage teg di uti aussi ay yu baax pour alimentation pour ndox ñu yóbbu ci dëkk yi mais ba nii may wax ak yéen bëri na ci ay dëkk yoo xam ne ba tey matlewuñ am na si dëkk boo xam ne bu ci mel ni lewe dëkk bu mag la boo xam ne dañ jigéen ñi dañuy toog ba 4 heures du matin du ñu naan ndox di di dem di rooti xam nga loolu bu ñu la koy wax ci jamono ji ñu toll vingt-et-unième siècle ñu la am na jigéen ñoo xam ne ba léegi dañuy takk seeni charrette dañuy takk seeni mbaam dañuy dox ay kilomètres pour am ndox ah loolu nag ñu ne ñun dinañ ko saafara dinañu jël montant bu mag ci budget bi jëmale ko ci ndox bi waaye it dinañ dem ba ci OFOR te tàmbali nañ ko tout de suite ñoo ngi nekk en collaboration ak waa OFOR pour que ñu jox ñu ay tiwo yoo xam ne dinañ ko indil euh, waa Colobane ba suñu naataangoo boobu it incha allah dinañ ko ci mosal loo xam ne moom it dina mën a jox euh, askan wi ndax lépp benn la lépp njariñ lay doon pour Colobane mm-hmm. euh, pour que en tout cas ndox moom kenn dootul am problème mu ndox ci ci Colobane da da nga wax benn baat président ci ci ci ci biti te mu xaw ma jaaxal man personnellement maa nga digg sax nga ne tiw yooyu dañ ma ko fi bàyyil su mu ñëwee dama koy soxla ngir assainissement ci compétence bu ñu dégg nga dégg nga tudd nga tudd assainissement euh, daf ñuy xaw a jaaxal ndax moyen dina ko mate. waaw non xam nga doonul ne sa compétence rek ngay def parce que boo ci yemee rek da ngay sonn xam nga yaa neuf compétences transférées. Mhm. assainissement doonul une compétence transférée mais gis nga boo demee Ndakaaru bu bu récolte yi euh, euh, tëjoo bu canal yi yi tëjoo dañ naan euh, ana monsieur le maire c'est-à-dire que ab dëkk lu fa nekk bu lu fa dox lu fa doxul ñu ne monsieur le maire la donc boo fa boo fi nekkee nekk maire da ngaa war a am une vision surtout toute compétence yëpp da nga cee war a am dem ci ministère yi nga xam ne ñoo yor assainissement nga ñëw toog pour que projet yeeg programme yooyu nga ñëw ñu nga mën ko réaliser nga ànd ak euh, en partenariat avec ñi nga xam ne ñoo yor secteur boobu pour nga mën ko réaliser mais doo doonul ne rek ah lii du sama compétence dama cay maandu kon mbir mi du sotti di dara du dox si di man damay poser sama dernière question après xam naa bu fekkee am nga loo ci war a yokk nga yokk ko ci concernant la campagne tey mooy sunu premier jour président bu amoon appel bu muy lancé jëmale ko ci candidat yi nekk ci département Gossas mën naa ko wax wala Sénégal gi yëpp ban appel lay doon def ndax bi nga xam ne bi nga xamee ne ñun dañoo ñëw ci euh, di tàmbali tey suñu campagne dañoo tàmbali par euh, dañoo tàmbali par euh, alxuraanul karim ñaan yàlla defal ñu jàmm ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamin ci campagne bi voté aussi jàmm donc jàmm jooju nga xam nag moom lañ doon ut ak ndam jàmm ji moom la ñuy ñaanal suñuy adversaire xam nga booy bëreek nit ki ngay bëreet Euh, da nga koy ñaanal mu am jàmm am doole am kàttan ba boo ko yëkkatee daan ko ñu xam ne mbër dëgg nga daan man bëggumaa bëreeg yaa fuus ku wér péng ku ku jot ku mate laa bëgg a kii donc damay ñaanal samay adversaire ñu am jàmm ñu dox lépp it ci jàmm ñu def lépp it ci fair play ñu ñëw ma daan leen jël bu set wecc te ñu xam ne vingt 24 janvier dafay am maanaam le 24 janvier dëkkandoo gi dafa war a des xarit gi dafa war a des mbokkoo gi dafa war a des te loolu bu ñaawee rek ci fi mu ne fii ci euh, lii ñu nekk dafay euh, dafay doy waar donc euh, looloo tax ñoo ngi ab lancé un appel ci population bi bi nga xam ne ñooy jóg di topp politiciens yi waaye ci politique yi nga xam ne ñoom ñoo yor kàddu yi ñoom la ñuy topp ñuy dox jàmm di wax jàmm di rappeler aussi à l'ordre population yi Euh, jërëjëf Birane mhm. jërëjëf euh, euh, président merci xam naa ne moom matal na laaj yi ñu waroon a laaj li ci ëpp nag moom mooy que ni comme ni nga ko waxee loolu loolu lañ gënoon soxla ci dernier mois yi moom mooy dem ci campagne ci jàmm ak salaam ndax yéen ñëpp yaakaar naa yéen a bokk fi ngeen bokk yéen a bokk mouvement présidentiel bi ngeen bokk xëy na peut-être ku ci nekk am nga yéene ci dëkk bi loolu jongante la nag ñu ngi lay souhaiter chance ci parcours bi xanaa kàddu yooyu tëjee rek ak di koy gërëmee say militants. waaw xam naa li may tëjee rek mooy euh, comme dañuy dañuy wax ci programme bi nga xam ne moom la ñu fas yéene doxal fii ci Colobane te ma wax leen ne dañ ko décliner ci ay chiffres loo xam ne dañoo bëgg indi lu bees ndax Colobane ñun mosuñoo xam li ñoom mosuñoo xam lii euh, da ngay ñëw rek takk say rajo rek di wër ñi ñu daajeel tamit loolu la ñuy def mais ñun dañu ne nañ ko def joo gis nañ ko waxtaanee ko jiite jiitu donc nañu waxtaan ak askan wi ci li ñu fas yéene def ak ñoom fan lañ leen bëgg a yóbbu mooy une vision ci Sénégal Colobane gu mucc ayib naka lañ koy defee ci ñetti axe lañ koy teg maanaam ci ñetti yoon la ñuy jaar pour ñu àgg ca loola ñetti yoon yooyu mooy la gouvernance territoriale cest à ñu fexe ba mairie bi ñu xam ne fii ab mairie fi nekk war a am une fonction locale ñuy war di waxtaan ak askan wi di leen rendre kon li ñuy def ñu di ko xam li ñuy xam lan la ñuy war a def ak fan lañ jëm transparence yi ñu war a def amit beneen axe bi ñuy wax gouvernance territoriale euh, euh, économique locale bi développement économique territorial bi maanaam euh, pàcc yi nga xam ne mooy suqali gox bi te loolu bokk na ci mbay meeg càmm geeg et cetera bokk na ci beneen axe bi muy euh, l'inclusion sociale ñu fexe ba askan wi juboo ñu fexe it ba euh, ñuy yëkkatindoo di tegandoo loolu aussi mooy euh, trois bi nga xam ne moo nekk ci programme bi ñu am benn chiffre 4 4 bi ñu ne mooy 4 accès il faut ñu wax naa ko léegi mooy accès l'eau électricité et cetera cest à e santé eau électricité voilà et éducation Euh, ñu am aussi le chiffre huit muy huit initiatives cest à dañoo jël ay initiatives majeures yoo xam ne ay rendez-vous lay doon pour Colobane yoo xam ne deme askan wi war na ci bàyyi di koy bàyyi xel di ko feete ñu def lu ñuy wax pencam siñi pencum siñi siñi mooy suñu gox bi euh, day doon rendez-vous yoo xam ne comme nii ma toogee noonu laay toogee ak askan wi ñu may poser question di xam li ma def fi ma jëm ak loolu dañ ko soxla war nañoo am ay journée de reboisement war nañoo am ay journée de la santé war nañoo am journée de la femme journée de euh, de la jeunesse de l'éducation donc am def aussi festival du signes boo xam ne wàllu aar beeg wàllu euh, aada beeg cosaan yi ñu man ko suqaliwaat donc euh, ñu fexe boo xam ne aussi journée reboisement lay doon nga xam ne dëkk bi yëpp fu ci waay nekk da nga defar ay ay garab buntu kër ñu koy defar mu doon un événement phare ci Colobane donc bi programme boobu incha allah moom laa fas yéenee développé bind naa ko tënk naa ko dinaa ci waxtaan ak euh, mbokk yi nga xam ne moom laay jël di leen ñaan yàlla it ñu comprendre ko di leen tàllal loxo it ñu dégg ko te man koo voté bu ëllëgee ci coalition bi nga xam ne moom la ñu yor muy coalition àndu nawle suqali suñu gox nga xam ne mooy li nga xam ne mooy génne Colobane ci guuta bi ñu nekk moo ñuy tegit ci rampe développement rampe de l'émergence donc au soir euh, le 23 janvier may woo sama mbokk yi ñu voté liste boobu nga xam ne ñun ci listu mairie bi rek ci la ñu nekk nekk euh, maanaam euh, àndu nawle bi ci mairie bi la présenté wu ah présenté wuñu ci conseil départemental conseil départemental ah on soutient la liste Euh, marron marron beige bi donc euh, askan wi nga xam ne ñoo ngi may déglu boo ñëwee ci taabal ji fekku fa boo fa fekkee nag bi xamal ne nag bi ngay voté soo fa fekkul nag bi nga voté fas bi waaye foo fekk nag bi ak fas wi jëlal nag wi soo fekk fas wi kese jëlal fas bi bopp fas bi loolu daal mooy kàddu gu mujj gi ñaan yàlla yàlla defal leen jàmm di leen félicité yéen aussi ci di leen ñaanal aussi ci seen association bi yàlla defal leen si jàmm ngeen am si ndam bañ leen di suivre aussi ci ay télévision mu doon télévision yu ngande jërë ngeen jëf. képp ci wàll wi te féete fii ci région bu Fatick wala féete fépp ci Sénégal fu ñu fi waay war danañ ñëw ànd ak yow kon ñu sant ko gërëm ko gërëm ñi nga xam ñoo ngi doon topp si di gërëm say collaborateur ñoom Assane ak sunu doyen grand. Fallou ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci caméra yi ñu maa ngi àndoon nag Fallou ndoy ak Baye ci réalisation bi Cheikh Gueye ñu ngi am mbégte bu baax a baax di xamal ne nag association bi mi ngi ànd ak yéen ci diirub campagne bi lu ëpp ñaar fukki euh, site internet di ko diffuser ndaw incha allah rabbi ànd ak yéen ci programme bi ba soir du 23 janvier 2022 jërë ngeen jëf mbokk yi ci seetaan bi